Kawolor di projet boo xamante ne dafay yëngatu ci wàllu xeex ndool ak fexe ba gën a ñoŋal li nga xamante ne moom moo di wérgu mu gone yu tuuti yii loolee tax nag mu am fenn fu ci nekk pàcc ci gox yi nekkee ci biir réew mii fii nga xamante ni nag moom moo di commune bu Diama ñu samp fa li ñuy tuddee GTC mu di nag ay soxna yoo xamante ne dajale nañ leen ak it ay góor yoo xamante ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi loolee tax nag ñu daal di amal formation wu ñaari fan jëmale ko ci li ñuy wax farine composé te it mu jëm rek ci fexe ba yo ñoŋal li nga xamante ni moom moo di dundunu ndaw ñi Mouhamed Fall moom moo di coordonnateur GTC commune bu Diama. te quatre jour mi ngi nii def nañu session de formation euh, ñaari session de formation benn bi euh, defoon nañ ko vendredi ak samedi beneen bi ñu def ko lundi ak mardi ñu convoqué woon relais yi nga xamante ne ñoom ñooy relais nutrition yi nekk ci biir euh, commune bu Diama. pour ñu defal leen formation ci wàllu euh, farine composé formation bi nag ñi ko def mooy euh, Kawlor projet bu ñuy wax Kawlor projet bi la dafa ñëw euh, fii ci commune de Diama liggéey ak ñoom donc day liggéey ak ñoom ci lutte contre la pauvreté ak lutte contre la malnutrition. ci nga xamante ni xale yi nga xam ne ñu ngi am zéro ba cinq ans mais tamit jigéen yi nga xamante ne dañu nekk en état de grossesse. Euh, boo de daf leen di jàppale ci li wax grenier des enfants tey relais bu nekk dafa ñëw représenter benn village bu demee ci village bi de former ay groupe de Galle yi fa groupe de Galle yooyu ñoom ñooy euh, planifier ses activité par rapport ak li nga xam moom lañ leen doon suivi bi mettre nañu en place euh, dans la commune 11 superviseurs yoo xamante en fonction des zones ñoom ñooy assurer suivi bi ci walu euh, planification bu fekkee tamit formation bi amna ay manquement au niveau des villages donc ñom euh, superviseur yoyu dañuy ñëw au niveau de ces villages là pour assurer suivi bi. projet la bo xamni dafa ñëw pour euh, xex ndol dafa ñëw itam pour xex xale yu lompoñ ci commune bi té lolu ku ñëw dinu ko jappalé euh na ni yaa ngi ci soqalinu ndax fu wër gi yaram amul kenn mënu faa xalaat soqaliku moo tax projet la boo xam ni doon nañ ko dégg euh, ailleurs au Sénégal mu def ay résultats yoo xam ni ci biir réew mi ak ci bitim réew mi yëpp nangu nañ ko yàlla defal nu sutura ñu ñëw war fi def euh, deux années avec euh, la commune la communauté de Diama mu nekk loo xam ne kontaan nañ ci bu baax. li mu fi def comme ni ko coordonnateur waxee léegi dafa nekk un projet particulier par rapport aux autres projets parce que moom soo boo leen seetee ni ñuy doxalee dañuy ñëw pour comme ni ñu koy waxee ñëwuñu pour may nu jën mais dañuy ñëw pour jàngal nu nuy amee jën ba suñu fi jógee ëllëg ndax ku ne xam ne ni projet jamono la fiy def di fi jóge su fi jógee itam nun nu mën a demal ko suñuy bopp ci wàllu tàggat xam-xam gi euh, ñoom doole seen liggéey foofu la nekk xam-xam bi alal gu bari lañ ci def moyens yu bari lañ ci def te xam-xam la aussi gu ñu segg bu ñu segg bu baax ci cadre li ñuy yëngu moo tax projet la boo xamante ni bi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom lool di ñaan yàlla en tout cas ñu yeggale ñu yeggale ñu ko bëggee ñoom te ñu am ay agent aussi yoo xam ne kenn ku ci nekk da nga jàppe sa bopp ni fii ci commune mu nga dëkk noonu loolu teg nañ ci suñu bët maire teg na ci bëtam kontaan nañ ci bu baax mu ngi ciy félicité Kawalor ak les agents de Kawalor affecté te xam-xam googu bu xasee ba nekk ci sa bopp muy ay pexe yoo xamante ni bi daf lay suqali muy ay pexe yoo xamante ni bi baax na ci sa njaboot pour xeex ndóol comme tey ba farine améliorée farine bi ñu doon bi ñu doon jàng tey mais li wóor te leer mooy nit ku nekk mën na ko defal mën na ko defal boppam ci këram euh, groupe de Bogalé itam mën nañ ko def ci seen biir ci seen biir communauté donc xam-xam bu bu bu am solo la boo xamante ni bi euh, loolu la ñuy xaar ci projet bu nekk moo gën projet boo xam ne dafay ñëw. pour def li def sànni fi xaalis xam dañ ko téye xam dañ ko téye nuñ ko wara a téye wala duñ ko téye nuñ ko wara a alors donc projet la bo xamé ne ça a été très bien réfléchi au départ ñoo ngi leen ciy remercier. mu di nag projet bo xamantene ne dafa lëkkaloo ak gox-goxaat yi ngir gëna saytu li nga xamantene mom modi moo nu ndaw ñi ak it xex ndol lolé ka koy xamlé mom modi Marcel Yanga mi nga xamantene mom moy yoré won formation bobulé euh, formation bi dañ nekk. C'est tourné, ci cinq communes ont xamné mom la de di intervenir ci zone Dagana département Dagana moy Ndombo Sanjiri Gaaya Bokol, Ronk ak Jama paré nañu boucler nañ formation ci la commune yoyu commune Jama mo fait ñu deuxième session de formation donc 4 quatrième jour donc nous ci fait wut moy Euh, ñëwoon tàggat euh, relais yi jox leen ay jumtukaay yoo xam ne dinañu mën a defar lu ñuy wax farine composée nga xam ne ay ingrédients yu bëri ñoo ko composé riche na en vitamine A faire zinc iode pour mën a jàppale xale yi nga xam ne ñoom ñooy xale yu tout tuut tànk yi six ba cinquante neuf mois ñoo xam ne ñoom lay defar euh, six ba vingt trois mois yu ñu defar alimentation complémentaire donc ñooñu la ñu bëgg. relais bu ñu fi jógee ñu mën a dem tàggat groupe de Bogale yi kuréelu jigéen yoo xam ne ñoo nekk ci village yi tàggat leen ba nga xam ne kenn ku ci nekk dina mën a defar sunguf boobu di ko mën a jox sa doom te loolu la ñu bëgg bëgguñu yegg ci xibon mais dañuy def prévention xam ne bu ko commencé di ko jox ak ferñeent yu ma am dina leen mën a aar ba xale yi duñu dinañ duñu yegg ci xiibon ci seen wàll nag ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di bénéficiaires yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom la ñu doon formé ñoom ña ngay rafetlu nag taxawaayu ki nga xamante ni moom moo di Kawolor ci projet bu ni mel ka yor seen kàddu moom moo di Yali Diop. ñoo ngi koy rafetlu bu baax ñoo ngi rafetlu ñaari fan yi nga xam ni ñëwoon fi formation si wàllum farine composé bi macha allah ñaari fan yoo xam ni yu am solo yoo xam aussi ki nga xam ni formateur bi di Marcel Yanga euh, macha allah jaarale affaire bi si yoon ba macha allah dugg na si relais waaw ñaari fan yi lu ñuy jàpp ni dolli noonu ko mooy xam-xam bi te loolu moo am solo si mbir mi parce que li nga xam ne dañ la koy xamal eh, nit ki buy dem du ko yóbbaale da koy bàyyee loolu dafa am solo lool surtout nag xam-xam bu jëm si wàllum xale yu ndaw yi nga xam ni ñun boo xoolee fii si Afrique daanaka loolu mooy sunu problème majeur sunu ndaw yi dañu xaw xiboon te ndaw mooy avenir wu réew kon ku ñëw indi la xam-xam bu mel noonu bàyyee la ko war nga ko sant war nga ko gërëm bien que nag volontairement nga koy def waaye itam daanaka du volontaire ndax loolu mu def si yow rek loolu amul njëg. pour bu nu delloo ku nekk bu delloo dëkkam ndax relais bu ne dafa am fu mu jógee bu delloo dëkkam mu góorgóorlu li nga xam ne jëlee na ko fi bu demee mu wasaare ko ci dëkk bi ba ñi nga xam ne war na ci jot nu jot ko. loolu moo ci am solo waaye pour nu xamal la aussi nga bàyyi ko fi walla boo demee nga denc ko loolu amul solo comme déplacé nga jël nga volontaire. nii lii dama koy defal sama askan kon buñ la ko xamalee ba pare boo demee sa dëkk war nga góor góorlu ba. Euh, di jotli euh, seen nuyoo ak seen gërëm ak seen encouragement à monsieur le maire ni ngi wax aussi tout la communauté de Diama nañu góorgóorlu ci feebar bi nga xamante ni moom moo lëmbi réew mi ñu respecté li nga xamante waa kër docteur moom lañu leen sant mooy di di raxasu convenablement di takk masque euh, en tout cas respecter les mesures barrières loolu mu ngi ciy woo communauté Diama yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah